lay sat tuwaasinu déet muy màndaxoonteeg maanaam déet muy tolloonteeg la daal dil millati fa borom diine ja junha baobatin laafu yoo awil ilaani wala ngir feeñal ga xissata xabriha waaye fukk darajaam moom àdduna la da rahmaani fa aji rame ji wala mu yëkkun te nekkut moom yàlla yarda di gërëm bi haa ci àdduna walam takkun te nekkut moom àdduna daara jasaayi di kërug payam ga li mu'minu ñeel aji gëm fatin kuy aji xellu li kaw ni haa ngir mu nekkam rek faaniyatan di aji jeex wal faaniti aji jeex laa shay'a du dara walaw balaxa ak doon te jotoon na raayatal xulaa daytalu kawe ya ne ni yàlla jaarale yonante yi ci kaw suuf nga xam ne ñoo fi gën a mettile ay jaaruwaay ndax nee nañu àdduna ku gën a baax dala ci yonante yi topp ci wàllu yi mooy ëpp ay tiis ak i naqar mu ne nag nitu kese bu seetloo loolu te xam ne rek àdduna ci boppam la yàlla jàppewul dara dara ba nga xamee ne sax difa ko muy kërub pay alaaxira mooy kërub pay ga ba sax àdduna diisewul ne laafum yoo ak li laafum yoo di woyof woyof àdduna tolluwul noonu fa sunu boroom subhaana kon nag ku am xel bu seetloo jaar jaar yonente yi day xam day xam ne àdduna la yàlla deful muy dara bu ko defoon muy dara it ndegam day jeex rek moom kon du daraati ndax lépp loo xam ne day mujj jeex rek amatut solo loolu mooy wàllu tiis yeeg naqar yi daan dal yonante yi ci kaw suuf mu des nag wàllu nañ daan jëflantee ci kaw suuf ci nañu daan takki soxna ak nañu daan jaayee ak jënde ak xeeti jëflante yi ak nañu daa wanee yoonu jaamu yàlla yooyu yëpp metti woon na waaye suñu boroom da caa bëgg a yokk rek seeni daraja ndax kenn ku ne kem la nga awale ci yoonu yàlla ci mbooloo rek da nga am pay gu toll noona nga xam ne kon seen jaar-jaar ci kaw suuf ñoom yonante yi lépp rek njariñ la lépp rek xekk ma la bu yàlla yi wan doomi aadama yi ndax ñu mën cee jàppe bindu bu ama am njariñ ba noppi itam mu fay ci yonante yu baax yooyu tuyaaba ya gën a màgg bu ëllëgee foofee ca alaxira moo tax mu teg ci wa daaka loolee bi itibaari xaalihim nekk na ci xalam seen mbir fiihaa ci àdduna alayhimoo yàlla na doolee nekk ci ñoom azka salaamay rabbihim gën jaar selli yaari musali seen boroom li ànd dal xaqli ngir naka boroomum xel ida ma tabara ndem xalam na fii xaalihim ci seen mbir wa sha'nihim ak seen mbir wa nazara te mu setantal kaana kon nekk la ñeel ko tabasurul axwaali gis dëgg-dëgg mbir ya maxat tanabuhi ànd ak yeewu bilaa dalaalin ci lu dul réer kon nee na ku yeewu bu seetloo ni yonante yi jaare ci àdduna bu baax a baax day daal di xam ne àdduna yàllaa ko doxale noonu mu daal di yeewu bu baax ci mbirum àdduna ba dara du ko mën a fàbbi ba yàqal ko àllaaxiraam tumma mahaani dil xaqaaidi topp maanaay yi lay pas-pas jamihan mbir mi mboole seen yej moom xaat na leen boole kalimatun benn baat minal mutihi bu bàyyikoo ci aji topp ja waxi yow moom baat boobu moo di laa ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla muhammadul muhammad arsalahoo yónni na ko mawlaahu boroomam salla yàlla na dolli tàdd nga àllahi ci moom abadan faawu rabbu samaay borom asamaan wa alihi ak ñoñam wa saxbi ak ay saxaabaam wa sallama te mu musal leen nee nag mboolem li nga weesu ci xeeti pas-pas lu ñu war a jàpp ci wàllu suñ boroom xamal ne boo waxee rek baatub laa ilaha illallahu mu daal di ëmb yooyu yëpp yëpp yëpp ba tey boo waxee muhammadun rasulullah mu daal di ëmb leneen lu ñu war a gëm te du yàlla nga xam ne baatub laa ilaha illallah dafa ëmb mboolem xeeti pas-pas yi nga waxoon ci suñ boroom muhammad rasulullah nag mooy ëmb leneen lu ñu war a gëm lu bokkut ak yàlla day bëgg a tudd nag loolu nu mu demee id ngir al uluhiyatu ak nguur wala bokk nekk di allah an yastaxniya moo di bu doyloo rabbunaa sunu boroom xan kulli ma siwaahu walis lépp lu dul moom yan na nga wattu maxaf ci xaawi kulli ma siwaahu ànd ak aajo wook lépp lu bokkut ak moom ilahi jëm ci moom yàlla sarmadan faaw hadaana yàlla na nu jubal allahu yàlla ne al uluhiyatu maanaam nekk di allah boo ko déggee rek mooy jëmm ju sell joo xam ne aajowul jëm ci kenn kenn mbaa lenn lenn mbaa fenn fenn te nag képp ku ne ak lenn lu ne ak fenn fu ne aajowoo na jëm si ci moom koo xam ne daal aajowoo kenn mbaa lenn mbaa fenn te yow nag képp ak fépp ak lépp la aajowoo kooku mooy Allah mu dali ko firi tafsiru laa ilaha illallahu pirim boo nee laa ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla mooy laa zaaxinan amul kenn kuy boroomuk doylu an kulli ma siwaahu walis lépp lu bokkut ak moom illal illahu ndare buur bi alwaahidu kadi kenn alqahaaru kadi ab notaakon alqaadiru kay aji àttan alfaxaalu kadi ab defaakon maa la nga xam ne yaxtaaru dana ko tànn walam yakun amutit man koo xam ne kullu xayrihi képp ku dul moom mbaa boog lépp lu dul moom iftaqara aajo woona ilahi jëm ci moom illallaahu ndara yàlla baari ul bashari mi aji bind bindee fii ne boo bëggee firi laa ilaha illallaahu da nga koy def ñaari tomb benn tomb bi mooy nga ne yàlla day mooy jëmm ju sell joo xam ne moom ci boppam aajowul kenn mbaa lenn mbaa fenn dafa doylu ci boppam sëkk sëkk sëkk tom ba ca des nga ne mooy yàlla day mooy jëmm joo xam ne képp ko aajowoo lépp ko aajowoo fépp ko aajowoo maanaam daal amul kenn mbaa lenn mbaa fenn foo xam ne mën naa wan gannaaw yàlla lu bokkut ak yàlla rek yàllaa ko sàkk di ko doxal mënta wéy bàyyi yàlla yàlla nag moom lim sàkk li muy bari bari aajoowu ci kenn mbaa lenn mbaa fenn ñaari tomb yooyu nag muy doylu ko yàlla doylu wëlis képp ak lépp ak fépp muy benn ak aajowoogu képp ak lépp ak fépp aajowoo jëm ci moom ñaari tomb yooyu nag ci la ñuy delloo mboolem xeeti pas-pas yi nga xam ne moom nga waxan ci wàllu yàlla mu bëgg laa leeral nag ana noo ko cay delloo ba lépp dugg ci ñaari tomb ñooñoo day njëkk wax nag doylu gim doylu yan melo moo cay delloo waaye wooji bu dana waral istixnaa uhoo doyloom ga xazza tedd na ba jàll te mu màgg an kulli ma siwaahu walis lépp lu bokkut ak moom aw saafan ay melo ajal waaw wujjoo daxoo te moo di amam nga xidamaxoo ak jiitoom nga tumal baqaa topp des ga tuma mu xaalafataxoo topp ak wutanteem ak maa la nga xam ne xalaqa bind na ko tuma xiyaamaxoo topp doyloom nga bi nafsihi ci boppam kasaani ki nii tanazuhun sell xanit naqaa isi walis mboolem xeeti wàññiku yi xeeti manque yi xusan na nga ko jàpp ne boo ne yàlla daa doylu ci boppam sëkk sëkk ci wet gu ne kon xamal ne mënta ñàkk melo yii mooy faaw rek mu nekk di ku am jëmm ju am di ku daliwul fenn di ku dul yam fenn di ku wuuteeg lépp luy mbindeef di ku wéeg boppam du wéeru ci kenn ba noppi itam nag set wecc wecc ci mboolem xeeti manqué yi yaddu xulu dana tàbbi fii taaka ci loolee wu jóobu samhi waruk dégg ga la wañeel yàlla taxalaa kawe na inda ahli sharhi fa ñooñ yoon waxaaka saaniki nii albasaru gis wal kalaamu ak wax maxal lawaasim yi ànd ak lawaasim ya al ulaa ya nga xam ne turaamu def na leen sàkku ba tey nee na bi nga ne yàlla daa doylu ci wet gu ne rek dal ngay dugal ci biir ne kon kat yàlla amee na ab dégg ba yàlla ca moom ak gis ba yàlla ca moom ak wax ga yàlla ca moom boo tuddee nag al samu al basaru al kalaamu nga xam ne ñoom dañoo bokk ci almahaani kon say boo génnewaale ca seeni maana wiya al samhu jàkkaarloog al samihu al basar jàkkaarloog al basir al kalaam jàkkaarloog al mutakallim id annahu ba naka moom law lam tajib doonte warutoon maanaam doonte saxutoon haadi yile lahoo ñeel ko lakaana kon mu nekk muxtaajan di aji aajowoo li muhdisin jëm ci aji sos lahoo ñeel ko aw li mahallin wala jëm ci jëmm aw ilaaman wala jëm ci koo xam ne yar dafa am dana jiñ an walisu ko an naqa isa xeeti manki ya allawaati ya nga xam ne taqaxu danañu tàbbi li tax mu ne boo ne yàlla dolli na ci boppam du mën a ñàkk yii nga wax mooy nee na su fekkoon ne melowutoon yii kon benn muy xarab maanaam loo xam ne day fekk jëm mu taq ca waaye mënta taxaw boppam mbaa boog mu daldi nekk jëmm ju ne léegi nga xam ne kon daa sosu te du mën a ñàkk mu aajowoo jëm ci ka ko sos mbaa boog su fekkoon amutoon ak dégg mbaa gis mbaa ak wax ba amee kon ak gumba mbaa tax mbaa lu muy xeeti manque yoo xam ne kon faaw rek mu daal di aajowoo ku ko teggil xeeti manque yooyu moo tax xeeti melo yi ñu wàññi moom boo xasi wax ne yàlla daa doolu ci gépp wet rek dal ngay dugal mboole melo yu ñu tudd léegi ba yu xasu def na jàppe minhu ci doyloom googu dana zuhul xal yi selluk aji kawe ji xan garadin walis xememteef fee fii alin ci jëf aw xokk mi wala àtte jëliin bi aji feeñ jëlii nag moo fi nekk ngir way wi li annahoo ngir naka moom law lam yakun doonte nekkutoon munazahan di ku ñu sellal xanil xaradi walis bëgg-bëgg muy xememteef fee fii alin ci jëf aw xokk mi wala àtte xaraba boobu gaar na lazima kon war iftiqaaruhoo aajowoom nga id yaxsulu ba dana am ila lazi jëm ci loo xam ne yu xasilu dana ko amalal mu garadahoo xemem téefam ba muy bëgg-bëggam ba li anna dal garadi ngir naka boroom xemem téef yaxtaaju faawu day aajowoo ila shay'in jëm ci dara mu xasilin luy aji amal la hooñeel xemem téef boobee kaman jalaa naka mu feeñe ne bi nga ne yàlla daa doylu ci boppam sëkk sëkk ci wet gu ne kon nee nga yàlla kat amul benn bëgg-bëgg nga xam ne kon yàlla bu dee tëral benn àtte mbaa muy jëf jenn jëf itam daa fekk muy coobareem waaye amul benn bëgg-bëgg boo xam ne moom la cay damu ndax boo ne yàlla amee na bëgg-bëgg rek kon na nga daal di wax ne kon doylootul ci boppam ndax ku amee bëgg-bëgg ku ne faaw nga aajowoo la lay jot li bëgg-bëgg boobee moo tax mu ne kayfa naka lool di mën a amee waxad ganiya te dawlu na dal ilaahu bi nga buur subhanahu sorelal naa ko lépp leelul ci moom an kulli ma siwaahu walis lépp lu dul moom nee na li nga waxoon rek moo mën a am mooy yàlla dawlu ci genn wet gu ne kon nag amul bëgg-bëgg amul xememteef boo xam ne day aajowoo lu ko ko jottali ba mu àgg ca déedéet amul benn bëgg-bëgg amul benn xememteef ndax dafa doylu biir ak bitte waxee ko saa ni ki nii yu xasu def na jàppe aydan ba tey min hu ci doyloom googu jawaasu kulli mumkinaatin daganuk mboolem ay mbindeef an huwalis ko ay li mu ci namm rek mooy la may ji borut àll ci moom jàll màgg na fi lu shay in def dara min xaaj ñoom mbindeef yi ba tarku fa akuk bàyyam kazaaka naka noonee yaa aw xëy yow sama si mbokk idi ngir law xaraa doonte gaaroon na wujjoo bu shay in waruk dara faxala loolu def na ko fil xaq li ci xel min xaaj ci mbindeef yi kat sawaa bi nik aw yool masalan ci misaal la la si ma kon war iftiqaaruhu aaja woom nga ilal la si jëm ci loo xam ne yakunu dana nekke za takammulin di boromuk mottalikoo bi ci moom xuz na nga jàpp idi ngir la may jib warut fi xaq yi dil jalaali ci aqi borom màgg ga ar raziqil wara ki aji wërsëgal mbindeef yi siwal kamaali ndari ak mat ba tey bi nga ne yàlla daa doylu ci boppam sëkk-sëkk ci wet gu ne kon nee nga sàkk gi mu sàkk kat mbindeef te mooy lépp lu mën a am amal gam ko amalkat nekkutoon warugar ci moom da koo soob rek mu def ko ndax bu fekkee da nga ne yàlla kat nangam da koo war a def mbaa nangam kat sañu koo def kon da ngay wax ne léegi doyloo tut ndax boo xasee am warugar faaw rek nga jéem a def warugar wa ngir motli koo ko maanaam boo ne yàlla war naa def nangam li muy tekki mooy yàlla nekkul jëmb ju mat ju doylu ci boppam ndax boo xasi am waru gar faaw rek nga aajowoo def waru gar wa ngir mottalikoo ko ndax boo ne woon nangam sëñu koo def itam faaw dana war a moytoo def loolee faaw war naa def lu man ndax bañu def loolee ndax walaa koy taxamat ndax buñ ne nanga waru koo def rek war ngaa moytu bu baax a baax bañ koo def ndax nga mat ndax soo juumee ba def ko rek te fekk suñu ko woon def rek mu daal nekk ak manqué te kay fa yakkoonu naka lay nekke rabbuna sunu boroom dafti xaarin di boroomuk aajowoo wax wate moom zuuxi nan boroomuk doylu la an kulli si waahu walis lépp lu dul moom yàlla moom nee na doylu gi nga wax rek moo mën a am ci moom ñàkk aajowoo kenn mbaa leen mat sëkk itam ba du aajowoo def dara ngir di ko mot li ko dara jaam yooyu nag mooy melo yi nga xam ne moo dellu ci doylu gi yàlla doylu ci boppam sëkk-sëkk ci wet gu ne day bëgg a ñëw nag ci wax gi nga wax ne lépp aajowoo jëm si ci moom moom it am na melo yoo xam ne du mën a ñàkk ci moom bu amul rek lépp du aajowoo jëm si ci moom am iftiqaaru kulli ma siwaahu ndaal aajawoog lépp lu bokkut ak moom ilay jëm ci moom yàlla jàll màgg na waxalaate kawe xulaahu kaweem nga fa yujibu dana waral alxayaata dund ga wal xudrat ak kàttan ga suma iraadatan topp na meel xilma ak xam wama ak la nga xam ne lazima taqoona la xaañeel yent yooyu ndax lawin tafaa doon ci dàq woon na shay'un dara min haasihi ci lama am ka ne kon du jàppandi ay yoojada bu def fekk shay'un dara xulima lool xameef na ko wa annahu ak naka moom min sàmm ci foofee laa yaftaqiru du aajowoo ilayhi jëm ci moom shay'un dara laa xaraana yàlla bu munu gaar ab dararu lor te fa kay fa laa naka la lool di bañ a amee wax wate moom ëllësi mooy ka nga xam ne xad iftaqara aajowoo na ilayhi jëm ci moom kullu ma siwaahu lépp lu bokkut ak moom wastaqarra te mu sax nee na boo ne yàlla lépp ko aajowoo kon daal ngay saxal ne yàlla amee na kàttan ak xam-xam ak coobare akuk dund juróom wett yii ndax boo tuddee alxayaatu day jàkkaarloog alxayu alqudratu jàkkaarloog alqaadiru al iraadatu jàkkaarloog almuridu alxilmu jàkkaarloog alxaalimu moo tax mu teg ci wa ma laha lasim juróom ñett yi moom bu fekkoon ne yàlla meloowu leen kon du mën a amal dara dara dara te nag bu fekkee ne amalul dara dara dara du aajowoo jëm si ci moom te nee nga képp ak lépp ak fépp ku aajowoo kon nag loolu rekk mën a am kazaaka naka noonu xadd aw jaba waral na waxdaaniyatun ak wéet aydan ba tey loxo ñeel yàlla jàll màgg na waxasa te mu tedd farxaban na nga xemmem ba tey boo nee lépp aajowoo jëm ci yàlla kenn mënta woon gannaaw yàlla kon day nee nga yàlla amee na ak wéet maanaam wéet na ci jëmmam ak meloom ak jëfam te dalilu foo tegtalam mooy lawkaan doon te nekkoon na maxu di ànd ak moom taanin jan aji ñaareel fiihaa ca wéet googee maanaam la maf taqara kon du aajowoo li rahmaani jëm ci aj yërëme ji shay'un dara min ajli xaji si kullin ngir lottu kenn ku ne mbir fu maaj ñoom ñaar min xiinama quddira ci waxtu wa nga xamee ne nattaleef na taanin aji ñaareel xawli ma joj xameef na ko bi nga ne yàlla lépp ko aajowoo rek kon nee nga wéet na ci jëm ak melo ak jëf ndax bu fekkee da nga ne woon yàlla am na moroom kon ñoom ñaar seenu jàppante day tax dara du sotti dara du am bu ko defee nag bu dara sottiwut dara amut kon dara du aajowoo jëm ci yàlla te fa kay fa laa naka la loolu di bañ a amee mooy naka la dara di bañ a aajowoo jëm ci moom wax wete moom allësi mooy ka nga xam ne xad iftaqara aajowoo na ilayhi jëm ci moom kullu ma siwaahu lépp lu dul moom wastaqarra te mu sax nee li man am kay mooy li nga wax rek lépp aajowoo jëm si ci moom muy ku wéet ci jëmm di ku wéet ci melo di ku wéet ci jëf loolu rek mën a am ba yu xasu def na jàppee min hu ci aajowoo gi lépp aajowoo jëm si ci moom xudoosul aalami sosug mbindeef ay ban ba tey bi asrihi ci mbooleem la daa dal xaalimi fa jili aji xam te dalilu foo tegtalam mooy law kaana doonte nekkoon na shay'un dara zaaqi damin di boroomu jiitu min hu ci mbindeef la kaana kon mu nekk zaaqi nan di boroomu doylu an huwa li si yàlla naxam waaw te kay fa naka la loolu di mën a amee waxad wajaba te war na ay yaftaqira mu aajowoo ilayhi jëm ci moom kullu maa si waahu lépp lu dul moom fas biran na nga muñ bi nga nee suñ boroom lépp ko aajowoo kon nee nga lu bokkut ak moom rek dafa sosu ndax bu fekkoon ne am na leneen loo xam ne susuwut daliwul fenn kon moom day doylu ca boppam ba du aajowoo jëm ci yàlla dagam nee nga rek am na leneen loo xam ne daliwul fenn sosuwut day daal di mën a wéet boppam moom loolee nga xam ne sosuwut daliwul fenn te nag li nga wax rek moo mën a am mooy yàlla daal lépp aajowoo jëm si ci moom wayu xasu def na jàppee min hu ci aajowoo gi lépp aajowoo jëm si ci moom di xaw li xaq ci waxi dëgg ja adamu tasirin ak ñàkk a jeexital li kulli xalxin ñeel mépp mbindeef fii asarin ci jeexit maa ju mën di doon fa xaf na nga ragal arrahmaan aj yërame ji duunal xalaa'iqi ci lu dul mbindeef yi tanal kon nga am amaanan kóolute ne bi nga waxee ne yàlla kat lépp ko aajowoo dara mënu ko woon gannaaw dem kon dal di ngay saxal ne loo seen rekk mooma moo ko def waaye mbindeef moom mënta def dara dara lu mu tuuti tuuti ndax li àndahoo ngir naka moom lawkaana doonte nekkoon na lil xalqi di ñal mbindeef asaruñ jeex it la lazima kon war istixnaau dalika al asari daylub boobale jeex it an rabbinaa way sunu boroom xat xan ci lu dog bi xayri may ni ci fen rasaqana yal na nu wërsëgale arrahmata yërmande fit daare ni ci yaari kër yi bu fekkee da nga ne woon am na lu bokkut ak yàlla lu mën a def dara dara dara kon day lu bokkut ak yàlla bu defee ba noppi loolee mu def day aajowoo jëm ca moom te bañ a aajowoo jëm ci yàlla te kon la nga waxoon ne yàlla lépp ko aajowoo dal nay deñ ba tax mu ne kayfa yakunu naka lay amee mooy naka lay nekkee zaali wa zaalika al ilaahu te boobee buur yaftaqiru dana aajowoo ilee jëm ci moom kullu ma siwaahu lépp lu fi moom aani danaa jublu xumooman ci ak tàmbali wa bi kulli xaalin ak ci bépp dayo fi daati ci jëmm ja was sifaati ak melo ya fil mitaali ci mitaal daa wax ne li mën a am kay mooy yàlla moom kenn mbaa lenn mënu koo wan gannaaw déedéet lépp aajowoo jëm ci moom te sax lenn lu ne fa mu tàmbalee ba fa mu yem rek day aajowoo jëm ci boromam muy yàlla waaye mënta wan gannaaw yàlla ci genn wet ci fa mu tàmbalee ba fa mu yem baatu xumooman ak wa bikkuli xaalin jee na nga ko xame woon ci prix daa soppiku moo tax nag mu di ko firi ne wa fussira firéef na al xumoomu xumoomu bil badaa ci ak tàmbali waxaa kasaani ki nii al axwaalu axwaal wala mu waxoon wa bikkuli xaalin moom it firee nañ ko bintihaayin ci ak daytal ne daa bëgg a wax ne rek leen lu ne day aajowoo jëm ci yàlla suñ boroom ca fa mbiram dale moom loolee ba fa mu yem haza lii nag ida qaddarta mooy boo nettalee dëxëran ci jenn jamono ni ànd shay an naka dara min haa ci mbindeef yi yu astiru dana jeexital bi tapxin ci jikko maanaam ci jëmmi boppam yaa aw xëy sama mbokk de amma isa qaddartahu ndaal ndeem nattale nga ko mu attiran muy aji jeexital bi quwatin ci kàttan jaalaha gu def na ko rabbul wara borom mbindeef yi fii ci ca moom kama yasxumuhoo ni ki mu koy waxee man ka nga xam ne jaxila réer na fa daaka loolee aydan ba tey mustaxilun aji jomb la faqilan na nga xellu li annahoo ngir naka yàlla yasiiru dana mujj xiina saa ci waxtu wa nga xamee ni lii istaqarra sax na subhaanahu sorelal naa ko lépp léerul ci moom jàll màgg na waxasate mu tedd muftaqiran di aj aajowoo aydan ba tey ilaa waasitatin jëm ci ab diggale fii baxdima ci lenn li nga xam ne yafxaluhoo dana ko def wa daakate loolee baatilu neen la lima ngir li nga xam ne arafta xam nga ko xablu ca bu njëkk min wujjoo bi añ yakkoona ci warub mu nekk mustaxniyan di aji doylu xamma siwaahu wëlis lépp lu bokkut ak moom yaa fàtt yu yow aji xellu ji li nga wax ne lu mbir tuuti tuuti yàllaa ko def waaye mbindeef moom mënta def dara dara dara loolu nee na am na yaari wàll soo jàppee ne dara ci mbindeef yi mën naa jeexital maanaam mën naa def dara dara moom ci boppam ni ki nga jàpp ne sawara ci boppam mooy lakk mbaa nga jàpp ne ñam mooy reggal wala nga jàpp ne ndox mi ngay naan mooy màndal lu mel noonu nga xam ne nga ne jëmm ji ci boppam moo jëf-jëf ja yàlla boolu ca dara loolu moom ak kéefar dëgg-dëgg lañ koy jàppee dana ko leeral léegi su fekkee da ngaa jàpp ne nag sawara ci boppam du mooy lakk waaye kàttan gi yàlla def ci moom ca lay lakke mbaa nga ne ñam ci boppam moom reggalut waaye nag kàttan gi yàlla def ci moom ca lay reggale mbaa nga ne suuf ci boppam bu tawee du moom mooy saxal waaye kàttan gi yàlla def ci moom ca lay saxale kooku itam day nuru pas-pas bu baax waaye du ko tax a baax ndax li muy tekki mooy yàlla kon am na yenn jëf yoo xam ne bu koy jëf da koy jaaree ci kàttan gum sàkkoon ba dénku ko ci dara bu jaare na ci kàttan googee jëfe ca jëf jëmu bëgg a jëf mel ne kon day sàkku ndimbal ci yenn jumtukaay yam defar bu bëggee jëf jaare ca jëfe ca loolu moo tax pas-pas bu sell jafe dañuy jàpp ne muy sawara muy ñam muy ndox muy leneen la ngay séen bu cay bàyyi ko muy nuru jeex itam jëf lépp yàlla te itam yàlla bu dee jëf du kat day jaare ca sawara wa jëfe ca mbaa ca ndox ma niki màndale ca mbaa ñam wa reggale ca déedéet jëmmi reggal ga day feeñe ca ñam wa màndal ga feeñe ca ndox ma lakk ga feeñe ca sawara wa waaye yooyu yëpp yàlla ci boppam moo ko def su ko defee nag